mbokk yi jërë ngeen jëf noo ngi bëgg ñëpp tey nag ñoo ngi woon fii ci kër Adja Ndeye moom sëñ Abou Moubaraka nga xam ni ñaari loxoy takk sër jàmbaar ji nga xam ni moo taral ay waajuram démb tey soog a ñëw kum xam dimbali ne la Adja Ndeye Adja hey mën a mën a moom déglu leen tey ma baakati mbaro yàlla mi fale fal naa Cheikh Fadilu moo aayatayoo yàlla may na ko rabbana ko dogal ca xaddiimi bil xaddiimi al bashiiri nasiiru lamu def ku ko bañ yaa di dafoo la mu axiba mooy waxibuuru bur yàlla lu mu def ku ko bañ yaa di defoo mu waxi ba mooy waxi buuru jokk naa ca xalifatu manoo yeslu naa ca dalloo bi ca biiru jokk naa jekk naa jekki naa dootu di waree lu jàll nan war ca gaal ga ca mbuuro nan ba ca waax ba ca mbuuro irkaboo gaayi nan ñaani paaso seexi faddilu gaal gaa ngi teeroo irkabo gaayi nan ñaani paaso seexi fàddilu gaal gaa ngi soobu nan sappe nan jàll nanoo gaaju nan ba ca géej géefa mbuuroo sëñ fàllu sëmbu nan sangu nan jàpp nanoo sugal leef na ca duus ya fa mbuuroo sant naa sant naa sedd naa xalifa maa yafal maa suuru jaaru naa jandi naa mandi naa daane naa faati njaay mee fa mbuuru bëmb naa bàkk naa sama mbaro lang naa maa ngi way sama géeru sëñ Fallu làggu na wàlli yoo na lang na dul ma wàlli ka juuru wàllu na wàlli na woote na na walla may kab ka buuru wàlli kër tëgguwuloo sajj lambi yàlla di buuru sëñ Fallu tawakkalna ala rabbina wasalna bi seyxil kabir ragna wapna wasfini nang masa farasa fi sudur sëriñ Fallu lambi diina ji sajj na tayo mbakke mbaate bu sooy jël soggi leen jàggi leen jóggi oh, ngeen daane mbëri yee ca biiru sëñ fàllu àdduna ci bakkan ñoo ma loroo ak bànneex ak kuréy kéema fiiru alaaji falliloo baaxul ma daane loon bal ma weyoo ren di leen yaa di seyxul sëriñ Falilu sama ndaama la moo bari ndamoo ndaama dam bi bawal ak juuru alaaji Faliloo ndaama laa jaraway jara kañoo maa ko kañ bani kaju yori ku ko bañ maa la bañ toj sa bañoo ku ko mere te nga wey siigi cooru ku ko bañ boo demee ci bàmmeeru da nga gis mu nakiir ak nakiiru ku ko bañ boo demee fa siraatu doo fa jàllu ndi doo am sufiiru ku ko bañ naari jël xaali danoo mbal da dal gis nga fi yaa sufiiru maa di xaadimu ahmadana maay géwal fa këram moo di géeru bamba naa bàkk naa sama mbërëb faayilun laawa yoon man na maa ko wayoo maa ngi way sëriñ Fallilook Cheikh Basiiru sëriñ Fàllilu xaadimul Mustafa maa ko wayoo maa ngi way sëriñ Fàllilu ak Cheikh Basiro fiilu naa faale naa faddulu naa faddalallahu yàlla di buuro lii nga neel awakaadu ko man yasa ko soob mooy xadiiro sëriñ Falilu sibtu Balla ma fii rufa nga yoo doomi baayu sëriñ Balla jooro baayu mbeen sibtu maam astawaalo bu soo doomi maam jaara du bàcci njuuro mbër ma na ca géej yëfa mbuuro bambanaan na ca géej ga nil ko sukka teg tasxini moo ko wax man di nan kaasi buuro rembat nan fallax nan moo nu duyoo kaasi buur wuute na kaasi beero baayi faatimatin maa ko fatu sama naar bi le dal na te wóoro baayu Cheikh Murtada la gërëmoo baayu may mun deesu ko jooro baayu muuminatin maa ko ku ko gëm dal diggante nga buuro baayu aaminatin maa am ku ko am dootu xaaraani reero sëriñ Falilu baayu muslimatin maa ko musoo ko mus dolli suukara seeroo baayu mbeen baayu may muuna mi mooma may soxna yi denc naa ba ca mbuuroo baayu aayisatin maa ko xasoo googa géej dootu feer maa ngi fuuroo mama may ci yére ngi solo donnu loo na ma ab sabaduuru Cheikh Moussa ne moom la maam Cerno daa barkeeloo ngir ka hat sol na bu bambasiiru mooma yar mooma yor bul ma royo ku ma roy xam ni roy du fi piiru sëñ Fallu moo ma def xarqu aadati yi summa jam ma xaar ki buuro moo ma def muxjisaati wayaam moo taxit sama way dem ba buuro baayu mbeen moo xaram sama way ba mu safoo moo taxit sama tur dem na biiro baayu mbeen moo ma def werakaanu këramoo moo taxit sama wax dem na buuru Sëriñ Fallu moo ma def werakaanu këramoo moo taxit sama wax dem ba wóoroo moo ma may fu ma jëm ñuy ma may moo taxit maay jigéen moo di góoru mooma fal ba ma siiw ba ca ndaro jàll naa wey jiwaalo gilooro mooma may lii maam maa gërëmoo ku ko bañ nal ma jox may si booro kiilu naa kollu naa kollu naa alhamdulillahi hamdan kasiira bamba del si na tuubaala na kaani doom baatu xalwa jandeero sëriñ falliloo mbër mi dem maka dem tay ba demoo marwataaki sawaaya kasiiro mbër mi moom mbakke moom daaru moomo jurbel ak jàkka ji yaa di buuro yandingaan tasbital yaa fi manoo bàkk leen bàkkuraan bàkke wooro mbar mi moom xarnu beeg jàkka jee doon mutu baasu doon labbe sooro suñ fàllu yow samay ji sagan dul kaamo bamba daalo ko am fiddu hooro yaanu mustabaat mujtabaa ya siyaare nga xayru xubooro ak xomoro naan nga zam-zam ba xayru biiro baayu mbeen aj nga umra nga dem nga min na sanni jam reya jam nga basiiro war nga kaabatu xayril wara dalli woo yaa di abli bi sëriñ fàllu yaay wuruusu tey ngalam duñ la raxoo waajalay saasalay saf ku looro wuute nga gaayi tey doo përëmoo yaay dërëm wuute nga aw xandeero sëriñ fàlliloo yaay sëriif tey xali fay xadim yaa demoon xaysara ak xusuuru aalimun waariun aafisuna yaa nu daana filal weeru kooro lil wara baariun kammarahu yaa ko raw yaa di baasilun waaqilun faddilun na kàmma gën yaa gën yaa di weeroo siñ fallu abidun xaasidun saajidun kàmma man yaa ko man yaa ko dóoru xaasiun qaadiun raakiun mum gilooro sayidun maajidun waaxidun yaa fi dem weesu faas romb tooro yaa yi ma wara yaa nu dayoo yaa nu makk yaa nu raw yaay kabiiraw suñ fàllu saabiqun saadiqun aasiqun fawqa ngay awliyaa fi duhooro kaafilun kaamilun yaa ko yaa nu sudurandum haa samdu gooro qul wa maa aybuwa indahum xayru xawfin safiin basiiru say xawaare xajul ci wolof say maqaamaati jommal saqiiru baarakallaahu fi fadlinaa jàmmane xew yoroo jam jamooro yow sax ay gi amul ay wore guerre bi jeex marchandise dootu seero soxna abu so laqi ndama moonu ña ñëwul dootu reero saafu nan soosu nan tibbu nan tabbu nan noo ko suuroo caafu nan soosu nan ceebu nanoo tibbu nan tabbu nan noo ko suuroo marhaban marhaban jël nga ndamoo masarixan maxriban yaa gi kuuru ngurgaru yi fi gën yaa fi gënoo ru yu bon yàlla bañ ay si laa taqaf bul ragal yaa fi manoo way borom bee yi fulooro maasi nen du fi roki dajo doomi ndaa maa ngi suuru ngelooro mandig leer uute naag naan gaynde njaay uute naag bukki njuuro xarnu bi yaa fi gën yaa fi rawo baa mu mat wuute naag am suhuuru sëñ Fallu xarnu bii bastulam yaa ko fuloo faddulu na yaa mal yaay si xarnu bii sun jigéen ñaa ngi solo ay mbalang duñ xaro tey mu sooro xarnu bii yaa ko naatal bu neex bexil yow sa ay moom ci Gaynde Fatma ñu jël maam soxna loo dégg ko moom sëñ Mbàkke soxna loo borom Taïf ak Baye Laa sëriñ dal xariloo daaw la ca ndaam la ca Gédé ajaan day ko yaa ko gañoo yaanu del mooy dara ak sa badoro yaa jël sa tànk te ko ci waxta simu yaa dilay jamiyan wala tafarraqu waaye Sëriñ Tuubaa ngay waajee moom ngay wallee moom mi def ci géej gi sept ans sept mois sept semaines sept jours sept nuits sept personnes dooy maam jaara tigu tin tin tin bëri toi Sénégal ñu ko bakkale fooy jaari nag muy raamu ma chéri ilaa Njurbel xaadim borom nit ñi Mali Adja Ndeye ko bëgg muy la Sëriñ Fallu koy waajee muy la Sëriñ Fallu ku la dimbali muy la Sëriñ Fallu Sëriñ Fallu 45 la toog ni kur bandang bandang rag meng rafle meng jiba mut dana dirigit sëñ Fallou Touba Njaariyam ni man mi maay Sénégal doomi soxna Awa Bousso ji e kooku mooy Adja Ndeye mi nga xam ni ki nga xam ni foo ko seen muy dem jëlul ngay laaj ci social lay dox Adja Ndeye foo ko seen muy dem jëlul ngay laaj ci développement lay dox kii nga xam ni moo sagal Serigne Fallou kii nga xam ni moo sagal Serigne Abou Mbacké Adja Ndeye Adja Ndeye benn maal rek ngay dégg muy maala mag tubaab dañuy laa fi ay diir mais regarde le chemin pulaar ni yi moom moo ji baba moƴƴi bigal bona tama a waɗa fini feere a waɗa spéare mi yan ke mburoɗi an sohna nday sohna nday sohna nday mum sañal bo tubarkalla gis ngeen berne yi berne yi bu ngeen duggee ci kër gi ba gis xar gis ñu defar ndagi gis gëleemi fee ngi soxla si toog ci biir diggu waañ mi di séddale nga xam ni dëgg-dëgg kii mooy garmi nga xam ni dëgg-dëgg Adja Nday mooy bété bété nga xam ni dëgg-dëgg ey kii mooy lingeer kii mooy jàmbaari Sëriñ Fallu Adja Nday Adja Nday moom si amoon Fadal Mbakki Sëriñ Fallu ngay waaje moom ngay wàllee e eh, nan teg foofu sunu baaraam ba ci kanam lu neex du doy ci leem do ak jiwu Sénégal sunu gaal bu duggee ci gaal la ñu am bu mu ñaan am mu mucc na nga ñaan gaal ga mucc bu gaal ga muccee am mu mucc nga mucc Sénégal sunu gaal yaa noonu mucc mbokk yi Sénégal na li ma xamante lu baax bëggante soppante ci yàlla tax ca xam ne inna malaa maalu bi niyyati wa inna maali kulli imrin maa nawaa fallu jaayante naag sunu borom ba am ngërëm sunu borom sëriñ fallu liggéey la sunu borom ba am ngërëmam waaye Adja Ndeye nag tey ñu ngi fii ci këram doon ko siyaar si muy femme sociale di femme développement di ko yàlla baaxal am jom am dignité bëgg boppam di liggéey ci islam bi ak diine ji bokk lii lii lii mooy Sénégal Adja Ndeye daal loo dund doyul CFA ak santé licence ak sens wërsëgu Ndakaaru teraangay Ndar ak Tiwaawan ak Nimsaat ak Fuuta ak Kawlax xiiw ak Yoof Adja Ndeye loo dund doyul wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu fi man ilayhi kii du gàtt fan daa yootu ak sëriñam teye ndax man nii bëggum pecc ak ñëw ci baas taxumaa ñëw daa bëgg doomi sëñ Modou Aminta Fall ji soxna maam say Fall sëñ Modou Aminta soxna maam say faal sëñ Modou Moustapha soxna maam say faal Seex laaw la ca xayta faal anta ma doon mi ci jaam ñi may sa bige ku ma faal ma ñu boole faraxati ca njar ndéem daa bàyyi maam Seynabu Njaay kooku la sëñ Fallou sëñ Modou Moustapha jël joxe addiya mu boole kook soxna Adama mu jëlaat ko jox sëñ Fallou addiya mu am ci sëñ Xabbaan kookoy waajuru sëñ aboo bokk ak eh, sëñ Moodu Aminta ndey ak baay soxna Njaaye Faal soxna nday Ablaay soxna nday Ablaay sëñ Moodu Aminta ñu jël ko andi ko nag ci ëttu baayam muy kër sëñ Seex Faal baayu góor sëñ Seex Ndigal Faal yor ko madib dàllam jëmm jii li ma ne la daa bëgg sëñ aboo ba bëgg ay mbokkam sooda ndiir mii moom moom ku mu fekk kër sëñ aboo randalu la ku mu fekk kër aji marché randalu la ndax man su ma dee taxaw fii soxna njaayaa dañ na loo am na nga ko gërëme ni waaye danga ne ko da fi yàgg kii day sax dàkk moo ko sëriñam yow da sax dàkk jóob yow koo bokkal dimbale nga ko koo dëkkal teral nga ko sa askanu kër ndey ak sa askanu kër baay yow bu na ni fekkoon nga ñëw ci kër sëñ aboo di doog a def ci sëñ aboo day mitti yow ci saw askan nga commencé laaw la cet laaw la ma làmmeñ laaw la ma xel mu aay sàccaa jëloon sa gën caay yi sa wura ba jaafi jaafi ja yi wasi wasi ja yi nga yàggal sëb sëriñ saa defoo ci yow laaw la cet tànnoo sax sax da xam ne ca bokk sa boole leen ci nañ si njaay mii daju ki xol nga ko def dama ne la ku bëgg sëñ aboo da nga koo bëgg laaw la cet soxna Diop mi daa yàgg ngërëm sëñ Mourou Bousso Dieng moo ko sàkkal matériel na moo ko boole sëñ Ibom sëñ Fall ku di dara doo am dara dama ne soxna Ndeye Diop mi daa yàgg ak matériel ndax sëñ Modou Bousso Dieng borom xaayal moo ko sàkkal matériel wala kii de man de ma wax dégg nga soxna maam sëñ Moustapha nag sëñ Modou Moustapha taawu moo ko jox sëñ Fall moom ca laajee boo Mbàkke mu yar ma soxna Ndeye Diop du gàttu far te kenn du ko yërëm ñaar yi ma mag sëriñ boo Mbàkke ku dégg sëriñ Fall yàlla na leen di yëg xanaa dama waxantu de Mbàkke El Hadj Fall moo boo gisee ma ñëw teew kër yi bari na Mbàkke yi bari na te ñàkkuma fula te ñi ma ko waxee laa ko wax si kanamu sëriñ boo yàlla na nga barkeel yàlla na nga dem na bu tuuma laqutuma ma ànd yow ba koy gis walaat maa yaa nu bindoo yaa nu mu daal di ma def si fooy gàmmoo ma ne ko soxna Ndeye Diop aboo gi fa laa gàmmoo woon daal fa laay gàmmoo ma soxna Ndeye Diop mu baax mu sell mi mu sëñ soxna Ndeye Diop loo dund doyut ndax ku baax nga te mënoo nga ne tout tànk laa waaye ñun ñi sa ci yow ay mag sax rek ñuy wax lu ñuy léemoo bu ñuy tëdd duñu wax lu ñuy léemoo bu ñuy wàcc kele ba la fekkee Madina ab desteen nga ma jox ba ma la fa jëkkee fekk booba dañoo gor woon waroon nu woon a yeewi ndax sëy bo lañ doon goram xamuñu nu ma ne ko kii lu xew la yaa Ndeye Diop sëy bo ma booleeg yow soxna njaayam sëñ moom di mi fekk ma Madina may la kii mooy soxna njaayam sëñ moom di ci sa saal ba yow bàyyi woo yow ku say boo am ku ne danga koo téye saboote woonu jeexoonu waroonu danga noo téye ñun ñëpp di nu taye sa alal may nu yar may nu tegg may nu dal man de boo may nu xaalis mayu ma yar du ma ñëw ndax fi ne des ne mënatuma koo sol mënatuma sol mbub mu dee sangoor ngor gi nga nekke ak sa yar bi nga nekke ak sa mbaax gi nga nekke wéet boo wéetee da ngay gore boo tuli ko da ngay gore man de mosuma toog nga jaw musuma toog nga tudd ñu nga bokk sa yëboo ah, te man da jàll naa ba sa néegu biir waaye doo jëw kat doo wax ca kaw suuf ku dëggu nga yàlla na la yàlla defal nga yeggale ci barke Serigne Touba Mbacke ci barke bu sa jeeg ma nga doon liggéeyal ci barke Serigne Touba yàlla dafa la cat akum ndok ci barke Serigne Fall nekkal ci jàmm yàlla nga dund ak jàmm ba dégg njaag nangu yu bari te fekke fekke lépp sax kenn mënu ko waaye yàlla nga fekke li nga bëgg ak li yàlla bëgg bu ñu bokkee rajo da ngay nangu dogal bu yàlla te ñaan li nga bëgg ku xam dañu la wax ku yegg dañu laa gunge waaye ku ñeme dañu laa déy borom xam-xam dañu koy rus borom alal dañu koy wek ki ñuy rus ak ki ñu wek nag kun gunge nga ñime waaye Adja Ndeye Diop moom sëñ Abou Mubaraka kum gunge nga ñime jàmbaar ji kum gunge nga am doole kum gunge nga am fit kum gunge nga am doole kum gunge kum gunge kum gunge kum gunge nga am doole kum gunge nga daan ey sa janday a janday moom sëñ bu Mubarak mbokk yi jërë jëf noo ngi bëgg ñëpp tey nag ñoo ngi woon fii ci kër Adja Ndeye Diop moom sëñ Abou Moubaraka nga xam ni ñaari loxoy takk sër waaye ñaari loxoy takk sër jàmbaar ji nga xam ni moo ay ay waajuram démb tey soog a ñëw jàmbaar ji nga xam ni moo ay bokkam démb tey soog a ñëw jàmbaar ji nga xam ni kum xam teral na la kum xam sagal na la kum xam dimbali na la Adja Ndeye Adja Ndeye social Adja Ndeye développement hey man a man a jogis du moom chez moi chez moi a pas le la vie est dure mais regarde le chemin pulaar ni yima moƴƴi baba moƴƴi bilal bona tama a wona filifa a wona simiyal kamburodi an wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa